ziar vitamine C di ko jam gaay àddina lépp lu metti neex lay mujj waaye lu nar a neex du gaaw suñ borom pare na fii ku fi mën yàllaa la mën loo ki am yàllaa la jox waaye ku sànni jam yàllaa la diiral ndax yaakaar nañ ci nit ba mu yaakaar ci boppam te tekkiwul ñu xeeb nit ba mu xeeb boppam mu tekki yor gi yàlla waa koñ bi àdduna tardé amu si nit mooy gis tardé Mandela 27 ans kaso mu génn doon président wërsëg du naaj boromay naaj. bëgg-bëgg nag si nit la nekk waaye ndogal yàllaa ko yor tukki yomb na bu jotee waaye jafe bu doon ku tukki am kon dëkk bi xat tukki sag dong la taxul nit am liggéey nag sag la taxul nit am bu doon liggéey rek ku liggéey rek ëppale nit kon doom du ëppale yaay ak papa ba ñuy yaakaar ci moom àddina nañ muñ nañ fonkante nañ bëggante ndax lépp mu ngi solo yàlla suñu borom ndax mbaam bu gaaw te yorul dara ne yéex tànd ak dara àddina dara weesuwul nit di nga nga te jàlloo nga yaakaar ne jàlloo te jàll nga àddina di nga foog ne jekk nga te jekkoo nga yaakaar ne jekkoo te jekk nga njëlbeen du dara mucc rek am solo yàlla na yàlla may mucc sama gars yi amul yàkkamti de muñ rek lu nar a neex du gaaw lu métti neex suñu borom pare na ko koy doon suñu borom suñ borom rek moo ko xam kon nañ def ndànk nañ dal nañ yéenante jàmm nañ bëggante ndax lu fi waaye di daw di nga tiitaroo nit may na ko nit bu dee kër la nit may na ko nit bu dee oto nit may na ko nit kon nañ fonkante xaalis lu mu bëri bëri fajul aajo yàllaay faj aajo. ci lu ma foog kon yàlla nañu yàlla dooleel yàlla na yàlla suturaal maa ngi ziare ñëpp di bëgg ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla na yàlla dooleel faj aajo yëpp te mu gën gënal du muñ rek te bañ a yàkkamti